ku nekk mën na ko waaye woote ñu wuy si la yaakaar naa ñu koy def ci réew mi dañ leen di compter ñi fi ñëw ñëpp kenn koo xamante ni dañ la koy transport wala dañ ji mille francs ñu jox la ko dañ leen woo ci loo xamante ni yaakaar naa ñun ñëpp ko bokk muy moom askan bi moo ko moom santul Niass santul Diallo santul Diop te askan dina ko défendre seen bopp kàddu dina du gudd parce que yaakaar naa l'essentiel a été dit est très bien dit même par ceux qui m'ont déjà précédé sur ce public donc dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di kàddu gi nag dédité le di Cheikh Niass mi nga xamante ni ba muy ñëw ñu bëri yaakaaroon nañu ni que Walfadjri dafay daanu mais tey jii papa bu ñëwoon yaakaar naa dafay dem toog fële bàyyi Cheikh Niass léegi dañ koy jaajëfal man particulièrement bu ma ñëwee Walfadjri c'est grâce à lui Cheikh Niass moo ma contacté ni ma yow élément Walf nga ñëwal Walfadjri te ba ma ñëwee Walfadjri ba xamante ni métti na ma boo gisee sax da ngay yaakaar ni def naa fi 10 ans wala def naa fi plus ñëpp laay tooñ jàmm donc Walfadjri c'est une famille Macky ak Babacar nañu xam ne tuuti nañu trop pour naan dañuy daaneel Walfadjri di leen jaajëfal bu baax a baax ñun nag suñu mission mooy nekk avec le lii la ñu xam lii askanu Sénégal xaar si ñun. kon dinañ continuer suñu mission ñu xam ne que sept jours yi nii du du du du lu ci def dinañ continuer suñu mission te li ngeen wax nag la ligne continue jërëjëf. seen yëpp la ñoo ko mën a défendre kon tey jii. politique car delloo gannaaw démocratie ci liberté de presse wala ci liberté d' expression rawatina nag mu koy jaaree ci wala fa nit xam ne moom mooy encore une fois la vois des sans voix bu ñu mënee tey fii ñoom di leen xelal di leen xibaar di leen taxaw loolu vraiment euh, lu jar a sàmm la te Babacar Diagne tuuti na ci ndërmeel euh, groupe Walfadjri dañoo réere mbir ne jamono ji ñu a le monopole de la diffusion wala fa ñun ñuy continuer di diffuser parce que technologie ak modernité foofu la yem kon ñoom ay cuune lañu